waaw salaamaaleykum Kaaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax suñu déplacement fii li ko waral ay doomu Thiès lañ te lépp luy yëngatu ci dëkk bi rek war nañ ci mën a am suñu xalaat bu rafet wala dox ci suñu tànk ñoom def def nag bu concerné lépp lu jëm ci tailleur yi sànq njagawaat bi ni ñu koy wax daan le ministre Pape Amadou Ndiaye bi nga xam ne moom lañu dénk wàll woowu te man sax je parle au-delà de ça dama dama naan lépp lu touché tailleur tey ñaar ñi ma àndal dañ ciy doon ay symbole dana di njagawaate lépp lu mu mën a nekk ci àdduna man dama ciy ñëw dama ciy bokk su suma suma mag la suma xarit la te il a donné le bon exemple mooy moo njëkk a nekk président mouvement des tailleurs euh, ba ni mu ko joxee Ablaye Ngom lépp fekk naa kon man dama bokk ci biir tailleur yi ndax euh, à mes heures toujours place am laa ñëw ñu toog di waxtaan xaar seen xam ne aussi il est dans le milieu nekk ci professionnel yaakaar naa ne bu ñu xëy bis te gisantew ñu bu jàmm rek day xew ba ci sama jigéen Aïda Fall jaara bi donc dañuy sant yàlla dañ cee bokk et ils ont donné un très bon exemple tey jox nañ exemple je dirais même les mooy ku matal dem ñoom tey loolu lañu loolu la ñu wane man nag naturellement je suis à la commune de Thiès Nord muy euh, le candidat la jeunesse tey boo dee xool li ëpp ci Thiès ci tailleur marché central la nekk marché central bokk ci suñu circonscription bi nga xam ni ëllëg buñ ko jiitee dafay bokk ci ñun donc c'est tout à fait normal que ñu ñëw assisté ci ñëw xool xool déroulement bi parce que dans notre programme tey am nañ ci un vaste chantier boo xamee ni c'est dédié à l'artisanat te incha allah buñ ci àggee bu ñu yàlla dénkee commune bi dinañ accompagner secteur yëpp mais particulièrement les tailleurs.